jërë ngeen jëf waa Wassare Lamb Wassare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen saa fi leen daan nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne namoon nañ leen nag lool ndax xam naa ne gëdd ñoo gisante ndax te loolu warul mën a nekk sax nag tey damaa kontaan ndax damaa ñëw caar yi ah, gis yoo xamante ni nii gëj naa koo gis seet sama waa ji ah ndaanaan la ci wàllu làmb ñax maa ngi leen waaw inna la waaw ginnaaw bañ sant yàlla jul si yonent bi sant suñu ñaari bu baax a baax a baax a baax ñu ngi lay dalal banam Wassare ak ki nga àndal di leen sant di leen gërëm kontaan nag ci ñëw bi ngeen ñëw fekk suñu caare di la wax ne waa Thialé dalal nañ la namoon nañ la lool wax dëgg yàlla maa ngi lay kii ma àndal moom jarul nuyu ndax xam naa ne doxandéem la. non kii kay doxandéem la tey saa mi ngi ñëw fii di ma ma maa ngi ma ne ko mbaay mu naam a bëre bul dem foo jëm. waaw xam nga mooy loolu. waaye Ouzin moo tax dama ko wax dara quoi garaawul mooy <laughs> kon nag na nga xam ne maa la sauvé tey dégg nga euh, gannaaw loolu buñ la nuyoo gëj nañ laa gis Wassare Lamb gëj nañ la gis ñàkk ci lu mu nekk boobaa. waaw ci li ma nekkoon rek mooy dëxuñu di préparer ci la ma jëm waaw ci liñ may xaar aussi ci ñi ma bëgg liñ may xaaree muy li ñu xamoon ay années yu yàgg ma bëgg indiwaat ko. aussi tamit ñu may xaar ci caaro yi ma war a téye drapeau bi nga xam si maanaam gox yëpp moom lañ bëgg waaw bugg fa jëm nag kon nag ci loolu laa nekkoon dëxuñ nekk samay affaire waaw moo ñu koy gisante waaye xam nga yow bu ñu koy gisante xoolee xalaate du fi jóg waaw. yi ñu fàttali leen tuuti rek. Euh, Alioune Seye ak ñàkk jaww ji ñoo fi amoon combat combat bi dem ba ci biir xaw a yàqu moo amoon ay coow ak ay détails peut-être xam naa kàggu dina leen ci woon tuuti rek extrait boo xamante ni nii ah ci làmb la jotoon am. kii problème bi. mais yàlla na. ok ñaaw na kaay. làmb kaf la ak ree bu dee ñaq moo ko def. ñaaw na la de guerre kilifa la ci làmb barki démb dégg ngeen tiis bi nga xamante ne am na ko ñàkk waajuram lu mu méttee tey nga saaga ko ci digg géew bu dee ñaq moo ko def juum na mbokk bu dee ñaq moo def loolu sëñ Bas juum na juum na juum na. Alioune yàq na làmbam Basirou Alioune Seye yàq na làmbam Alioune Seye yàq na làmbam Bas Alioune Seye de yàq na làmbam oh lii rafetul ci làmb. waaye boobaag léegi ñu gis ne mbër dafa am métier te ñu gis boobaag léegi euh, peut-être aj nañu la ba woo joxuñu la sërilikaa boobaa ak léegi euh, temps bi yàgg na mbër ci lan la concentré woon. waaw wax dëgg yàlla nag ñi ma nekkal dañoo dox ci yooyu staff ma nekkal dox nañ ci jéego boobu ba nga xam ne maanaam même tey ma xëy loon liggéey du feeñ. lépp lu ma a def doomu aadama ci bépp côté ñi ma nekkal seedaanuñ ma benn wax dëgg yàlla lu ñu indi bokk koog man aussi man nekk naa si ay usine ay société wax dëgg yàlla yoo xam si dama fa doon liggéey ak yenn chantier yi gën leen yombalal seen jàppale ci man daal boo ñoom tamit wax dëgg yàlla li ñu am bokk ak man aw ma benn souci wax dëgg yàlla te li nga ma sant moo doon entraînement dëkk ni defoon naa te ñoom poche boo ñëwee ni nga ñëwoon ak tey ni nga ñëwee xam nga ñax mi tëdd woon di nelaw doon sant la alhamdulilah. kon su ma juumul mbër war na mën a am métier lan ngay wax xale yi nga xamante ni dañoo bàyyi seen lépp jublu ci làmb. waaw parce que du du ñëpp la sa loxo jot ginnaaw waaw ñi nga xam si maanaam tey xam nañu carrément lu ñu am rek seen doole lañ ko may te liggéey làmb tal na at yi weer si ginnaaw doxut kon ku si yaakaaroon sa doole ci làmb kase xaw na métti ci yow te boo amul ku la jàppale satisfaire la moo affaire nag du xaalis ka waaw nit ki mi ngi satisfaire nit ci ay kàddu yoo xam ne yu génn ci moom la mu doon loo xam ne kàddu yu solide la kàddu amour la kàddu bëgg la kàddu gën la gëm la sa bopp même boo amul wax jooju day fees sa biir waaw. mais làmb ji dafa yàqu mais ñu bay dañoo bëgg ñàkk jaayu ñu ak Alioune Seye sëgg bëre loolu la nga ji wax ñi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy demander dañuy demander combat boobu te bëggoon nañ mu leer seen bopp ndax keroog du ngeen stade bi macha allah ba mu fees ku nekk def noonu la ma ñi nga xamante ni dañ naan Alioune Seye est-ce que dina bëriwaat ak sa côté lan ngay leer lañ wax. waaw man moom foofu li may leeral rek mooy euh, tey jii moom moom parewaatul pour bëre ak man. moom Alioune Seye. waaw parce que li tax mooy li ma la wax rek même nit ñi bu ñu ko bëggee du benn nit rek mooy bëre te su ma nekkee sax si médias yi di si yaatal day mel tey dama visé wu ci moom wala déedéet waaye lu mënut a ñàkk foog moom man sérieusement muy Alioune Seye ak keneen ku mun ti doon suñ ma seetee waxtaan ak staff bi mu taxaw tay tay tay parce que moom laa am mooy sama liggéey nit ñi bu ñu xëyee dem seen place man damay xëy dem géej ñëw tëdd dem salle musculation ñëw tëdd demaat ngoon contact physique. kon man bu ma toogee rek ñu wax ma combat bu ma arrangé jëluma ko rek pertement la ci man parce que ñi ngay ma si bañ a jël combat wax dëgg yàlla moom nag man gëm naan tey bu nekkoon moom bëgg na combat taxaw waaye des fois mu yaakaaroon ak li si nekk doonu benn man nag nii dañuy yuuxu naan nii ak nii waaye ku dugg si man ba war a bëri ma da xam tey gaynde nga jël te seetlu ma wax mbëri jaar ci man yëpp nga am ndam nga ñàkk am ndam da am coow dañ lay dégg ci làmb yàlla moom moo jargal lool loolu yàlla ma ko jox moo dama la gëm yàlla doy na ngandaay waaw kon daal su ma déggee wax ji Aliou ñàkk jaayuñu pare na pour bëgg ak Alioune Seye mais ci Alioune Seye la la mu foogoon ba jël ñàkk jaayuñu du loolu la ci gis moo tax fi mu toll nii dox combat bi daal dina xaw a métti parce que nit moom euh, nee biir du fen quoi bu xiifee jooy c'est-à-dire tey bu mu jógee ci làmb ji wax na ko ñëpp dégg ko parce que ñëpp nee nañu nee na moom combat bi li mu si daj mun ko kenn te ay bor fekk na ko si non jan jariñ mel ñàkk jariñ moo mel noonu le président de Thiaroye le président de caaro yi maa ngi nii waa xam ñu ñi dañ ay panthère ñi naan dañ lion ñi naan nii man man jën laa waaw jën bi may wax nii am na ñu ko xam ku tàppate YouTube le président di nga xam le président man jën bu am ay bëñ la bu soxor man si diggéew noonu laa mel waaye nag su ma nekkul si diggéew nag xarum yar laa. daa am quelques kàddu yu ma bëggoon sànni Alioune Seye parce que jamono jii maa ngi dégg si cité mi ngi wax rek quoi nee na du morom ñàkk jaruñu moo ko mën. benn nit soo ko mënee un doo nit fayoon tey un million tey doo si dépense lu un million boo amaat ay bor si lamb ji jeexee vrai ou faux loolu maa ngi woy bëri tey mu leer na tey yaa ma dàq bëri yaa ma mën instant yii toog ñu fayal exemple million doo si dépensé trois wala quatre millions ngir man parce que amu mën quoi. ok kon loolu kon wax ju yàqu la beneen bi mooy dafa jot gaa yi xam af histoire nu mu demee ku bëgg ay euh, ay privilège naaj da ngay dem suñu gaal 24. ñaq jaruñu pare ne ba pare pour euh, pare pour bëreek Alioune Seye mu ngi wax benn mbuus zone am ñaari butéel ndaw bi butéel saafara Aliou Koura dem di wër pour def ay dernier réglage Alioune Seye fekk si ko mu ko njëkk a sotti butéel bi. donc ku dem seen Sunugal 24 kese moo am image yooyu noonu te nekkul ay montage nekkul ay fiction tamit image royale la sotti ko boobi day fayu borom man tamit damay fayu borom man tamit su ma dàqajee na ma rey mais du ma daw ñu aj ma daw suñun quoi du ñu aj tapet mu ñëw attaqué gan xool booy bu ndaw moo ko noox Alioune Seye booy duma duma la ba nga naaj su lu mbër jàppoon di doo doy ñoo la dàq bëre ñen nee nañ nga a bëre da nga mën a bëre ah billaahi wallaahi su ñu ñu la jàngal bëre jàngal la xeex. wala mu am lu may sant di xam tamit euh, da ngaa tàppee rek moo tax nga naan doo bëreet ak ñax xam su mu daan la nee lan ñu la jege ñoo ne fu boo jëlee ñax du topp làmb ja ils raison wax nañu dëgg parce que lu ñu bañ mooy lan la pare ñu daan la bu na ñun tey ñax ko naan bu ko jël. kon noonu rek quoi mën nañ laa nangul garaawul mais bu toog naan ñoo mun ñàkk jariñu loolu wax bu wax bu yàqu la exemple muy dégg Alioune Seye mun nga bëreel ñoo koy nangul non non coow jibul mu ngi baax ñoo leen mën lépp si lépp nag si bëre si rab même bu rab sax fii fii ku ñàkk jaaruñoo bëre si rab sax wala ñu ngaa ko bañ dañ koy tuxal day caarooy xoolul géej waay si bépp nag si lépp cat ba cat for réel ñun ñàkk la ñu gëm ñàkk la ñu am yow wan loo mu